salaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di dalal ak jàmm ci VSD de Minapro jamono bi ñu nekk tey jii nii Sénégal boo déggulee tubaab bu dee sa jàng soriwul dafay jafe torop nga am liggéey Euh, waaye euh, si li ma jot gis ci at yi ci ginnaaw ñi nga xamante ne jànguñu ñoo ëpp Sénégal te am na ay xam-xam yu bari yoo xamante ne mun nga jàng ba wàcc xam-xam yooyu doo ko am li am solo te euh, lii tax may def vidéo wolof yi nii dafa fekk ne damay gis ñu bari ñoo xamante ne pour ñoom bu ñu jàngulee rekk dafay am ay bunt yu bëri yoo xamante ne tey tëju wala ñu jàpp ne euh, ñàkk jàng boobu tax na ba am na euh, ay opportunité yoo xamante ne euh, daf dafay tëju wala yu mel noonu léegi bu dee yow jànguloo ça dépend tamit âge bi nga am donc situation yi may jël ak exemple yi may joxe damay tàmbali ci ki nga xamante ne jàngul waaye bu dee jàngul tamit am na benn métier boo xamante ne jot na ko jàng wala am na benn formation boo xamante ne jot na ko jàng wala am na luñ ko jàngal ci waa këram wala ci mbokkam yi wala lu mel noonu bu dee amul dara loo xamante ne xarañ nga ci moom kon loolu li ma lay euh, ñaax mooy nga xool lan mooy formation bi nga xamante ne intéressé na la tey jii nii boo demee ci mairie yi wala nga dem ci UVS am na formation yu bëri yoo xamante ne doo fay te mën nga ko def donc xam naa ne boo demee ci mairie yi wala boo demee ci ASC yi foofu di nga ci mën a am ay information si yan mooy formation yi nga xamante ne euh, mën nga ko jàng bu dee plombier bu dee menuiserie euh, bu dee confiture bu dee transformation formation yaa ngi fi te euh, soxlawul fay léegi nag doo yàkkamti euh, balaa ngay mun fayeeku loo xamante ne euh, mun nga ci faj say soxla il faut nga sonn ci jàng bi il faut nga am loo xamante ne yaa ko ëppale ci xam-xam nit ki ba nga xamante ne keneen dina gis ne yow li ngay liggéey soxla na ko il faut nga mën nit ki ci li nga xamante ne yaa ngi koy defar pour mu mun a jëfandikoo li nga xamante ne yaa ngi léegi mun na am yaa ngi seetaan vidéo bi te yaa ngi toog sa kaw ay formation ba pare waaye xamuloo nan ngay def ba euh, mun a am ay client wala ba mun a am ay nit ñoo xamante ne euh, ñu ngi gis sa liggéey Euh, loolu am na situation wu bëri boo xamante ne ñan lay dal dina gis koo xamante ne peut-être jàng na ba sixième bàyyi jàng wala jàng na ba troisième bàyyi jàng dem defi benn formation foofu tamit euh, dama lay euh, conseiller boo mu mënee xool ci ASC yi wala ci mairie yi ndax am na kenn koo xamante ne mun na la jàppale pour bindal la sa CV parce que CV tamit mooy ubbi ay bunt yu bëri boo amee CV. nit ki gis sa CV gis liggéey bi ngay def gis expérience bi nga am mun na am demoo école mun na am sa tubaab leerul waaye kii soxla ku ko defaral climatiseur wala ku ko defaral euh, menuiserie wala plombier soxlawul gis ni am nga bac wala bac plus 5 wala yu mel noonu bu gisee ni am nga 10 ans expérience am nga client yoo xamante ne kontaan nañ ci sa liggéey kon su boobaa boo doon dem di ut liggéey feneen bu ñu gisee sa expérience rek ñoom seen xel dina dal kon foofu conseil bi ma lay jox bu dee am nga euh, niveau boo jàng te am na formation boo def nga xool kan moo la mun a bindal sa CV pour mun a gën a fësal yow lii nga xamante ne danga ci xarañ li nga xamante ne euh, foofu nga mënee loolu mooy euh, ñaareel bi ñetteel bi mooy euh, kii nga xamante ne xam na ne jàngul donc teel na tàmbali liggéey euh, teel na nekk apranti walla am na atelier am waaye mun na am dem na ba ay jamono gisatul client foofu jamono yi ñu nekk tey jii nii ak Facebook bi wala ak Instagram bi am na ay bunt yu bari yoo xamante ne dafay ubbeeku donc fii tamit am na ay formation yoo xamante ni mën nga ko def pour mun a xam yow saa boo defaree benn liggéey mun na nekk benn meuble wala lu mel noonu nga mun ko photo mun nga tàmmali jël foto bi dugal ko ci sa WhatsApp wala jël foto bi dugal ko ci sa Facebook ba nga xamante ne mun na am kenn dina partager sa page wala partager sa liggéey ba nga am yeneen client yoo xamante ne feneen la ñuy jóge du ñu jóge sa gox mun nañ jóge beneen région gis liggéey bi nga xamante ne def nga ko mais ah liggéey bi de rafet na bëgg naa si bëgg naa nga defal ma ko kon tey jii nii ñu bëri dañu jàppee ne Facebook bi so réseaux sociaux yeex yooyu ay caaxaan la waaw dëgg la ay fecc nga si lu nekk nga ji ci waaye nit ñaa ngi ci kon yow bu dee da nga nekk entrepreneur mu am lenn loo xamante ne mën nga ko il faut fii nit ñi gi nekk nit ñi mën a gis sa liggéey ax ah, liggéey bi nga xamante ne yow yaa ngi koy def kon foofu euh, conseil bi ma lay jox mooy bu dee euh, sa jàng soriwul mais am na ay création yooy def am na liggéey boo xamante ne mën nga ko su boobaa nga xool euh, nan ngay jegewee ay association yoo xamante ne dinañ la mën a jàppale pour nga xamante ne sa liggéey képp ku ko gis dina ne ah liggéey bii de liggéey professionnel la dinañ gën a dellu si yeneen épisode yi si nan ngay defee ba am page boo xamante ne nit ki ku nga ku ko xool xelam dina dal dina ne page bi page professionnelle la mais euh, ka nga ka sa jàng sori wala ka sa jàng bañ sori lii nga xamante ne euh, moo jiitu mooy il faut que euh, li nga xamante ne moom ngay jàng wala li nga xamante ne moom nga bëgg il faut nga dem ba xarañ si il faut nga dem ba am si loo xamante ne pour keneen mun loolu dafay nekk lu jafe il faut que képp koo xamante ne gis na sa liggéey rek ne ah liggéey bi muy liggéey euh, set na set boo xamante ne gisuma ko fenn kii rek laa bëgg a liggéey laa bëgg a liggéeyal walla kii mooy ki nga xamante ne euh, moom laa soxla looloo tax conseil bi may jox foofu mooy ak formation bi façon formation nu mu munti mel dafa nekk loo xamante ne dafa am solo bu dee tamit ndaw nga te amuloo liggéey yaa ngi toog sa kër conseil bi ma lay jox foofu mooy nga ut ay stage yoo xamante ne même suñu la fayulee bu dee stage yu trois mois boo xamante ne fayuñu la am na solo nga dem di wut façon liggéey yooyu nga dem di wut façon stage yooyu parce que foofu mun na am nit ci stage bi dina gis ne sa liggéey dafa rafet ba bëgg la embaucher wala tamit ëllëg bés boo doon dem di wut liggéey feneen di nga mun a ne ah man de liggéey naa fii liggéey naa fi mu nekk loo xamante ne day dalal xel keneen koo xamante ne mën na la embaucher te yow tamit dafay yokk sa expérience ak sa xam-xam loolu lañ leen andiloon ci épisode du euh, VSD de Mina Pro bi di leen wax ba beneen boo leen amee ay question tamit mun ngeen ko bind ci euh, commentaire yi jërëjëf